soxna si yaa ngi ci Yegle TV ñu bëggoon a xam lan moo waral seen tànk fii. Ah, waral suñu tànk fi daal mooy ñëw sant si Thierno loo gërëm ko ñaanal ko ndax dafa fekk ñu nekkoon ci politique bi di daw ak tàccoo ka def lu ne moom mu ñëw ne damay jàppale jigéen ñi ñëw daal di ñu jox 100000 francs léegi bi ñu joxee 100000 francs ñu cotisé ñun ku ne 2000 50 personnes la ñu woon bi ko defee ñu am. ñu am cent cinq mille cent cinquante mille daal di koy jël séddale ko quinze mille quinze mille léegi bi ñu ko séddalee quinze mille quinze mille ñuy fay di ci tegaat mille francs ñu demaat ba mu affaire bi wër ñu def ko vingt mille vingt mille ñuy def deux mille francs di ci di ciy teg mille cinq cent ba affaire bi wër ñu dellu def trente mille ba affaire bi wër macha allah daaw ma surprise leen ndax dama toog di dajale léeg koor gi. may sàcc di denc sàcc di denc ba korite ma génnee cinq cent mille ne lii de man maa leen ko dencaloon fii léegi nag seet nu ñu def ndax lan la def parce que xaas bi suñ ko génnee nii jënd ci dara séddoo ko day seey léegi nañ jël xaalis bi séddale ko suñu biir di ko def ko trente mille trente mille di ko ba mu wëraat ñu def noonu di ko def ko 30 minutes defe naa jour bu joxe naa ñaata nit di personnes beneen vendredi ma joxewaat di personnes dama def noonu ba mu wër daal ba yàlla dogal ñu demaat ba ci cinquante mille yi léegi nii ñu ngi ci 50 mille suñu suñu defee wi chaque vendredi dinañ am lu mat 150 wala 200 mille wala ñu dem de tegale ko ba beneen àjjuma su ko defee. ñu daal di am 300 wala 400 mille 3 personnes wala 5 personnes ça dépend du xaalis bi toll rek ñu séddale suñu biir ku ñu jox 50 mille ngay fay chaque chaque vendredi nga ñëw di fay soo amee nga 2000 francs noonu daal lañ def di wër macha allah gis nañ suñu bopp bu baax baax waaw. waaw waaw ah lekket rek bëgg a ko rek bëgg jëm ci kanam lo daal lañu bëgg bëgg lu yokk rek lo daal lañu bëgg ñun jigéen ñi liggéey rek lañu xam liggéey rek lañu bëgg bëgg lu ñu yokk daal moo tax ñu jëm ci loolu kenn meru ci nag hmm. waaw ñun léegi ñu ngi se ñu ngi ci ñun 50 lañ mais léegi daanaka xam nga day am ñoo xam ne dañuy dem ba yàgg duñu ñu mën a dem ñii am problème seen jëkkër ñii am lii su ko defee boo ma expliquer sa cas ma ne la ah comme mënatoo léegi dema nga toog bu la yàlla mayee ba nga mën a dellu si nga ñëw dellu si parce que yëpp ci yërmande la bokk waaw parce que du ñu du ñu biskile kenn ndax jigéen dafa néew doole ñu ni neen la kenn amu ci la base bi yàlla dogal na ne ñoom ñëpp bëggante amuñu benn problème ñoom ñëpp ma bëgg tamit jiital ma ndax xam jiital moom nañ la bëgg ñoom ñëpp déggoo man lu may defi damay toog woo leen ba ñoo mën leen lii de nangam ak nangam ñu ne ah waa nangam ak nangam ñu bokk waxtaan juboo wax dëgg amuñu ci benn problème kaw daal la ñu a dem ci kanam ñu ngi ci ginnaaw cër na loo nag ci kaw rek lañ ñu bëgg a dem waaw nañu ñaan daal waaw xanaa nekk ci maire rek ñetti meer lañ man ak Ndeye Guèye ak maire Xarajata Njaay mi ñu nekk ci koñ ba tuddoon suñu bopp sopp na bi nag ba ñu xamagul Thierno Lo kii ñëw et mi ñëw expliqué ñu ko ñu ne kon mën nañu ànd ak moom liggéey nag ñu amuñu kenn ku ñu jàppalantee suñu bopp dañoo dem ak suñu doole bopp Thierno Lo ñëw jàppale ñu Calabas ñu yor ko di ci liggéey ba ba léegi nag wax dëgg yàlla mi ngi jur ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaanal Thierno Lo mu yokku jëm ca kanam non réccu wuñ ci dara daal ndax wax deug yàlla yokkute lañ ci jële ndax ñu ngi téré suñu suñu projet di ko joxal joxalante suñu biir teg suñu intérêt dugal suñu caisse ba légui tabarakallah ma sha allah hmm wa waaw waaw kenn won ci lén nak ñu nekkon suñu bop fa suñu bop kenn yóbbul suñu lén commencement ba amu ñu fa ñu woon laaj suñu xaar dañu defal ay recipe suñu xaar dem na ci top top tootuñu lén sax ñu ngi jël sëgg ci dara xam nga ko nekk dara topp toog sa gannaaw seen loolu ñu jàppale ñu ba léegi ci loolu lañ sëgg rek ku neen ku ñëw ne eh, ut daal ngi fi ñu nekk rek lebu ñu kenn ñu ngi suñu xaaj di ko liggéeyee lépp na grâce ci Thierno mhm. ah ñun daal ñoo ngi toog ndax góor na jox ma na mu defoon ba jox ma laaj ñu kon mooy kon dimbal ñu dimbalee ñu ko jigéen ñu ne lii dimbali mooy dimbali ñu te laaj ñu ko woon kon mooy amaat coobareem rek ci nu mu ko neexee ñoo jàppalee ñu ko ay jigéen daal ñu di gor gor di gëm suñu bop waaw bu ñëwee sant nañ ko bu ñëwul sant nañ ko ñu ngi and ak mom toujours waaw waaw jotaay tay ñu eh, ma and ak maas gi eh, wax dëgg yàlla dañuy ànd ak kuñ naan Thierno Lo mu soxal ñu lool bëgg jigéen ñu torop moom lay àndal tey ñëw ci këram def réunion bu ndaw ànd ak moom ndax euh, Thierno euh, bëgg na jigéen ñi bëgg goo xam ne lu jigéen ñi yëngu rek moom a nga ca biir loxo ma nga ca biir di jàppale jigéen ñi surtout ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk euh, yëmbal nekk benn baraak wax dëgg yàlla jàppale nañu bu baax a baax a baax. Mhm. Mhm. waaw kàddu yi may jox jigéen ñi mooy nañu jàppoo. bokk ndey bokk baay liggéey àndandoo ñun ñëpp ñu liggéey ñu xàccandoo ñu dóorandoo ñu ñëpp jigéen ñëpp topp ci ginnaaw Thierno Lo ndaxte moom lañu am amuñu keneen ku dul Thierno Lo waaw ci mhm. Mhm. ngi ciy bàyyi xel bu baax. ndax xam nga nga fekk ay jigéen yoruñu dara nga tegal leen calebasse ñu ciy liggéey ba am ci tey ay millions yàlla grâce à Thierno Lo ñu ciy liggéey ba ku ci nekk tey ji bu ci sa doom laajee bi wala mu laaj kaye doo xaar seen papa da nga génne sa poos jox leen ndax grâce à Thierno na wax dëgg yàlla moo ñu tegal leket yooyu ñu di ci liggéey di ci suturlu di ci faj suñuy soxla